tey jii waa Sénégal yeewu ak benn information boo xamante ni moo jëm ci wàllu biir réew mi muy ki nga xamante ni moom mooy professeur Didier Raoult mi njiitu réew mi Macky Sall daal di def commandeur de l'ordre national du Lion bu nekk benn décoration bu nekk ci biir réew mi bokk ci distinction yi gën mag ci biir Sénégal te ñu koy faral di joxe ci jamono ji nga xamante ni. ci wàllu jàmm lañu nekk beneen bi nekk koo xamante ni liggéey na lu toll ci fukki at ak juróom ci wàllu service civil wala militaire wala koo xamante ni def na ñaar fukki at ci liggéey professionnel. bile distinction nag ñu daal di koy taxawal ci atum 1960 ci weeru octobre te kii di Léopold Sédar Senghor daal di ko defoon. Sénégal am yeneen distinction yoo xamante ni daanaka am na fi ci biir réew mi waaye sénégalais yi am na ñoo xamante ni yëkkati nañ seen kàddu wax ci li nga xamante ni moom mooy boobu décision nga xamante ni kii di président Macky Sall jël na ko ngir jox bi la distinction kii di professeur Raoul. waaw bon man de je vois que ni bon c'est très normal vu son attachement donc ak son soutien apporté au Sénégal depuis le début de la pandémie donc mérité na décoration boobu quand waaw ñu élevé ko au commandeur de l'ordre national du mérite du lion au moins donc man daal gis naa ne c'est bien parce que boo xoolee depuis le début de la pandémie moom il toujours estimé le Sénégal sa façon de soigner les patients aussi toujours boo xoolee par rapport ak médecin yi nekk fii coow li fi amoon wax ji ku nekk di indi sa xam-xam puis di xam na ñoo xam ne sax dañ demoon bay euh, bay manifester seen euh, euh, ñàkk a d'accord si façon bi ñuy soigner mais moom il a insisté il a persisté aussi que ni chloroquine bi donc ça faisait l'affaire te pourtant jusqu'à présent amul benn lu ko mun a démentir donc man moom je vois que ni c'est normal parce que tamit Sénégal dëkku teranga la donc c'est normal ku mel ni yàgg ñu estimer yàgg défendre Sénégal tamit naw suñu médecine naw suñu façon de soigner et tout donc yoon la ñu décorer ko man je ne pas de donc au moins xanaa li kay dafay gën a firndeel suñu li wax rek Sénégal réewu teranga te aussi moom mérité na li daal. allo asalaamaaleykum waa Sénégal ñu leen di nuyu di leen ziare waaw jaa ngeen jëf waaw ñun dañu fay dégg ñu def ni dañoo jox euh, Didier Raoult pour mérite ordre national euh, ordre mérite national des Lions te ñu xamuñu la moo tax ñu jox ko ñuy demandé yan critères la ñu war a moo tax ñu war jox ordre national des Lions ci mel ni Didier Raoult nga xam ne Sénégal bi am na ay médecin yu mel ni médecin docteur Seydi moom am na mérite bi lu tax jox ñu ko ko ah, suñu mbokku pénitencier yi nga xam ne ñu ngi woon ci prison yi di garde depuis 4 6 mois ñu ngi ci biir bi pandémie bi amee ñu ngi jógewuñ campénal toog foofu ndax mbas mee taxoon mënuñoo déplacé wu mënuñoo dem seen kër yi liggéey boobu ñu liggéey ba tey ak ñi nga xamante ne ñoo nekk liggéey yëpp amuñ ku jox suñu ordre national des militaires yoon ñu ko jox ko ñaan bi jaraw war a am ñu def la ordre national distinction boobu nga xamante ni kii di Macky Sall jël na ko jox ko kii di professeur Didier Raoult mel ne am na yeneen yoo xamante ne am na ci biir réew mi yëpp nekk ay ordre national bu ci mel ne grand croix grand officier commandeur officier ak chevalier. bu mel ne ñi ko jot jël ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk France daanaka bëri nañ ku ci mel ne Emmanuel Macron nekk njiitum réew bu France ñu joxoon ko Grand Croix Didier Raoult ñu jox ko commandeur Michel Ringard nekk tamit commandeur nekk député fa nga xamante ni mooy France Noël Joseph tamit ñu jox ko commandeur mu tamit nekk homme politique français ak ki nga xamante ni moom mooy Anne Hidalgo ñu defoon ko chevalier te mu nekk maire bu Paris.